su pare ne baaxul doublon yi ñoo ko yàq ndax nit ki mënul lii laay euh, élection loterie nationale élection loterie bu ngeen lay def mooy da ngay de wuti parrainage kenn wuti parrainage yëgoowu leen déggoowu leen nga ñëw teg sa parrainage remplir ba pare kii ñëw remplir ngeen bokk lu ngeen bokk lu ngeen niroole yow loo ci xam yow loo ci yëg ñu ne la yow doo bokk ci élection yi nax am na ku la njëkk bi ñu tiiree mu njëkk a jàll ti am na parrainage yi nga am léegi nag ñu ne ki njëkk jàll day nekk candidat ki ñëw am même parrainage ko moom amul liñ ko laaj am na liñ ko laaj est que lu xel mën na ko nangu Sénégal loolu fi am muy lu garaaw a garaaw ñoo tax ñi def ay recours yëpp dañuy perdre seen temps loi bi moo baaxul